aoudubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen dokkeel te di leen baalu àq bu baax di rafet lu ànd bi di ñaan suñu borom mu saxal ko te barkel ko di ñaan itam li nga xam ne moom lañ fi génnee ci wàllu firi gént yal na yàlla def njëriñ ci séentu yàlla def ci lu gën a kawe seen suñu njort yéen itam yàlla defal leen dégg ànd ak jëriñu bu baax a baax a baax comme ni ñu ko baaxoo ci seen firi gént tey dellusiwaat na yéen ak ci beneen bunt bu am solo ci wàllu firi gént ñu dellu ci ibaadaat yi maanaam ci jaamu yàlla yi maanaam lu mel dellu julli aj màkka woor joxe azaka jàpp ak yu mel noonu ci gént tey ñëw ci bunt bi ci njëkk mooy gént bi dellu ci jàkka dinañu indi fukki point ak juróom benn yoo xam ne dafay dellu ci gént di jàkka li ngay njëkk a jàpp man mooy gént yi nga xam dafa dellu ci jaamu yàlla rawat na julli wala jàpp wala jàkk wala yu mel noonu li ngay jàpp quatre vingt dix pour cent baax na nekkul nag cent pour cent quatre pour cent baax na ndax léeg-léeg mu ñëw du baax ñii fi firi gént léeg-léeg da laaj nit rek mën ndàngam baaxul du loolu gént léeg-léeg dana baax ci jigéen bi nekk ci néegu sëy bon ci célibataire baax ci célibataire bon ci jigéen ji jóge say wa bon ci góor gi am soxna baax ci jigéen bi euh, góor gi amagul soxna léeg mu nekk géntu baax ci ndaw nekk lu ba lu bon ci màgget noonu la ñuy firee gént moo tax léeg-léeg lu ci ëpp la waxee quatre-vingt-dix-neuf pour cent wala ñu ne soixante pour cent wala soixante-dix pour cent wala cinquante pour cent bu nekk dafa am lu ñu koy atte ñu ngi ñëw ci gént dellu ci jàkk wax naan li ëpp quatre-vingt-dix-neuf baax na lépp ci li muy dellu bi njëkk dana dellu ci jege yàlla maanaam nit ki nekk nit ku sopp borom te bëgg yàlla bëgg jaamu yàlla léegi dana ñëw wane personnalité doomu aadama bi ci wàllu mbaax ci wàllu yiw ci wàllu jub ci wàllu normal léegi dina ñëw fii taxirul xaal maanaam changé changement ci wàllu dundin maanaam ilal afdal yokk gën ni nga doon dundee maanaam changé daal léeg dina ñëw firi jafe-jafe yu jeex wala naqaar yu jeex léeg-léeg dina firi sëy incha allah boo ko defee ngeen topp ñu fukki point yi ak juróom-benn bu baax te teewlu ko bu njëkk bi da ngay jàpp ki nga xam ne dafa gént taxaw wala fekkee fu ñu tabaxee jàkk wala moom muy tabax jàkk benn yaa koy tabax sa alal la wala yaay entrepreneur bi wala yaay mason bi wala sax nga jàpp ci liggéey yu tabax jàkk ji wala jumaa ji lan lay firi gént gu baax a baax la danay firi mansib kabir mansiban kabiran yaani palaasu liggéeyukaay bu kawe kawe kawe incha allah balaa yàgg yàlla dana la ko jox gént yi tabax jàkk wala fekkee fu ñuy tabaxee jàkk wala lu ci aju danay firi yokkute bu baax ci wàllu liggéey maanaam liggéey ci grade wala ci daraja bu kawe kawe kon gént gu baax la loolu mooy firi bu njëkk bi ci gént di fekk tabax jàkk ñaareelu firi bi firi bu am te ñii firi gént ñu bari d'accord ci mooy danay firi ragal yàlla ci nit ki nga xam ne moo ko moo koy moo koy moo ko gént waaye itam dana dana ne moom nit la koo xam ne ku topp sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam la waaye ku tegu ci jaamu yàlla moytu bakkaar kon li ngay jàpp première bi gént gu baax la ñaareel bi dafa concerné chabul chabil aout maanaam célibataire ci góor xale bu góor boo xam ne salibateer la gént di dugg si jàkk bi muy dugg mu ànd ak mbooloo ci ay nit mbooloo ma moo xam xam na leen moo xam xamu leen benn firi la am mooy dalilu ala zawaaj lan lay firi yàlla dana ko may soxna ci diir bu yàgg diir bu yéex gaaw boog balaa yàgg incha allah kon li ngay jàpp moom itam kazalika baax na lool euh, gént sa kër kër nga dëkk mu mujjee soppaliku kër gi nekk jàkka maanaam kër la woon nga sentir kër gi daal léegi jàkka la wala ci biir kër gi nga gis ne am na jàkka te baaxu kër gi nekkul woon loolu laaj la boo xam ne am na mbokk moo ko laajoon ci France ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar lan lay firi gént gu baax a baax danay firi yéene nit ki xolam bu rafet walla yéeneem bu la waaye danay firi euh, jikko yu rafet danay firi itam jege suñu borom incha allahu tabaraka wa taala te danay firi ne nit kooka nit ku yàlla gërëm la kon moom it gént gu baax la ala kulli li ngay jàpp gént gis jàkka da gis jàkka duggoo ci defe naa gis nga ko nii rek lan la fii tey sirul umuur maanaam yàlla dina la dimbalee sa mbir yëpp dana jàppandi te dana yomb incha allah coono du ci bari eh, gént gu baax a baax la gént nag di eh, defaraat walla di bale walla di defar jàkka ma tabax jàkka ji pare na nga gént di defaraat jàkka ji fëgg yi moket parfum taal cuuraay def ndox lu baax la ci jëf waaye lu baax la ci gént lan lay firi ay maanaa yu bari la am bu njëkk bi mooy danay wane ne yow aji gént gi nit nga koo xam ne ku sopp lu baax la di ko digle te di ko tere te itam di ko moytu kooku génn benn la ci ñaareel bi bu fekkee da ngaa nekk insaan nii maanaam nit koo xam ne yàlla di la dénk koom nga nekk borom alal génn gént loolu danay firi ne ragal nga yàlla ci sa alal jëm la jox yaa ngi ciy joxe azaka yaa ngi koy def fi nga xam ne fa la ko yàlla bëggee maanaam bu fekkee gént borom alal moo gént loolu loolu lay firi bu fekkee borom xam-xam moo ko gént moo gént loolu yàlla dana dolli xam-xamam incha allahu tabaraka wa bu fekkee bi nga koy gént jamono yi loo xam ne daa fekk nga nekk ak ñàkk jàppal ne sa yusbihu min al agniya maanaam da nga mujj nekk ci euh, ñi am xaalis maanaam da nga pauvre comme man nga gént di defar jàkka jàppal ne junj bi mooy yàlla mën na laa def borom alal incha allah gént gu baax a baax la bu fekkee célibataire la bu góor wala bu jigéen moo ko gént sa yatazawaj incha allah yàlla dana ko may jabar wala dana ko may soxna incha allah kon bu fekkee gént di defar jàkk wax naa tabax waaye kii defar la bale ak du la lu aju ay maanaa yu bari la waaye ci nit ñi la dépendre ki am alal li muy firi ci moom wax naa ko ki amul li muy firi moom wax naa ko boroom xam-xam bi am na li muy firi ci moom wax naa ko kon gént bu baax a baax la ok bu fekkee dalaa fekk nga nekk nag koo xam ne am nga soxna wala nga nekk ci néegu sëy jàppal na yàlla yàlla dana la mu wërsëgale zurriyatan tayyiba maanaam njaboot gu barkeel incha allah kon boobu benn la ci maa ngi ci juróom-ñaareelu point bi wax naa fekk juróom benn la gént di dugg ci jàkk joo xam ne xamoon na jàkk ji ban jàkk la yow daal gént nga ne dugg nga ci jàkk julli nga fa wala julli nga fa gént nga ki fa gént gu baax lan lay firi yàlla dina dimbale at moom da nga ci dem màkk incha allah loolu lay firi gént gu baax la gént sujoot ci buntu jàkka sujootoo ci biir jàkka ji waaye ci buntu jàkk ji nga sujoot lan lay firi qabul tawba maanaam danay firi yàlla dana nangul sa tuub maanaam da nga am bàkkaar yoo doon def wala nga doon tuub wala nga doon jégalu yàlla lan lay firi yàlla mën na jéggal na la say bàkkaar incha allahu tabaraka wa taala gént ubbi buntu jàkka ji nga gént lan lay firi lii ngay jàpp bu fekkee dalaa laa fekk nga nekkoon nit ko xam da nga am ay bor yu tegoon sa kaw yàlla dina dimbale bare da ko fay incha allah bu la fekkoon ci feebar feebar ba dina wér incha allah bu la fekkoon ci njàqare ak jaaxle jaaxle yàlla dana ko dindi kon li ngay jàpp gént bu baax la juróom-ñeenteel bi da gént faatu ci jàkk yi laaj la ko fi ñëwoon di neen dafa gént moom mu génn àdduna waaye ci biir jàkk ji la gént gu baax la lan lay firi gudd fan dana am waaye sa mucc maanaam da dund waaye da nga faatu ci gëm yàlla ak ci jaamu yàlla kon moom baax na lool gént di def euh, signé comme bu ñuy takk sëy ci jàkk yi mbooloo yi daje fa nga signé kooku moom dana dajul waa lay firi sëy lay firi ci góor ak ci jigéen gént di di signé comme contrat la wala sëy la wala mbooloo mu daje wala yu mel noonu yàlla mën làmbay soxna wala boroom kër gu baax incha allah kooku it baax na gént nag jàkka ju daanu wala ngay màbb jàkk yow yaay daane jumaa ji wala nga am jumaa joo xam nga gént jumaa ji daanu daa lu mel noonu lan lay firi baaxul dana firi borom xam-xam wala ku ñu yaakaar ci diine wala nit ku am daraja dana génn àdduna loolu la ko boroom xam-xam yu firee ñuy wax ne toujours li ñuy firi ci gént nekkul loo xam ne man maa koy wax ni wala xam-xam bu ñu làmbatu ci jaww ji li ñuy wax yëpp lu ñu bind ci téere yi la ku dem gëstu seet lépp lu ñuy wax mu ngi téere yi ñu bind te lii la borom xam-xam yëpp bind ne gént jàkka ci màbb heure bu ñu waxee dee dafa raglu nag kenn ñemewu ko waaye daa gis ñu ci xawtit waaye comme nit ñi muy dundee suñu borom dafa ne xalaqal mawtu wal xayaa bindee dund noonu la bindee dee ñu ànd kon li ñu d'accord mooy gént jàkka ju màbb danay firi jàkka ju daanu danay firi bam borom xam-xam bu faatu waa kay euh, da nga gént di julli ci palaasu imam bi fi nga xam ne fa la imam di taxaw nga gént taxaw fa yow dafa julli su fekkee imam ba koo xam la nee nañu génn àdduna lay firi ci imaamu jàkka ja imam bi diw la nga xam ne diw la waaye tey fi mu war a taxaw du jiite mboolaa mi taxaw fa yow yaa fa taxaw su fekkee xam nga imam bi lañ wax danay firi génn àdduna ci imam ba wala iyaazu billah moom it comme la ma waxoon ci bee rek du lu ñuy wax nii lu ñu nekk ci téere yi lan naka la nekk loolu wallahu taala ala wa alam gént mbooloo moo xam ne dañoo gedd jàkk génn waxtu julli jot nga gént mbooloom yëpp di génn jumaa ji wala yu mel noonu lan lay firi mooy dëkk booba nga ko géntee même bu fekkee fa nga dëkk jàppal ni nit ñu sàggane diine lañu waaye nit ñu ñàkk a topp sunna sayyidina muhammad la gént gi baaxul gént di dugg ci jàkk bi ngay dugg nga war dara maanaam bi ngay ñëw ci jàkk ji di dugg ci biir jàkk da nga yëg ne ci kaw fas nga nekk wala ci kaw mbaam nga nekk walla ci kaw oto nga nekk nan lay firi ci yow la dellu mooy nit nga koo xam ne dangay ngay dog mbokk fonkuloo sa mbokk wala yu bari dana yàqoo ci yow kooku moom baaxul waa kay euh, borom xam-xam la commerçant boo xam ne dafa gént tabax di tabax jàkka gis nga ñii tabax jàkka baax na ci ñu baree bari waaye ci kenn rek la baaxul mooy borom xam-xam buy tabax jàkka kooku moom dañuy wax ne kooku dana def erreur wala jumte ci wàllu diine moo xam bind moo xam wax la waaye bu dee commerçant boo xam dafa génn di tabax jàkk lan lay fi di tadullu ala rizq yàlla dina ko defar xéewal ak wërsëg ak bénéfice bu baree bari baax na lool bu dee élève la wala étudiant boo xam ne dafa gën di tabax jàkka lan la fi tadula ala tafawuq fi dirasa dana fi yokkute ci wàllu xam-xam dana yàlla mën na ko may ay diplôme waaye dana jëriñu ca njàng ma ala kulli xaalin lii mooy étape bi njëkk ci wàllu gént yi dellu ci jàkk fukki point ak juróom benn mi noonu yi ci firi incha allah yeneen yi dinañ ci ñëw ñu ñaan leen ngeen abonné partage ko am laaj mën nga ko envoyé ci numéro whatsapp bi ñu fàttali ne mbii dafa ay changement léegi boo amee gént da ngay envoyé 500 francs Wave wala Orange Money ci même numéro bi ngeen jàkkaar lool soo ko envoyé da ngay capturer message transfert bi ak audio gént bi nga envoyé ñu ko ci whatsapp bi te nga lu sa heure tontu bu ci da nga jot sa tontu jazakumullahu xayran